asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turumak santam te di leen jàll euh, li nga xam ne moom mooy tiis bi wàcc suñu kaw mooy xale yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci làkk bi nga xam ne moom moo amal foofu ci hôpital bi nekk ci Tivaouane di ko jàll euh, suñ njaboot yi di ñaan seen borom euh, gën leen may xolub muñ noonu aussi laa koy jàllee képp koo xam ne doomu Sénégal nga. ndax eh, njaboot gi suñu njaboot gi la ñun ñëpp ñoo ko ñoo ci bokk yëpp di ko jaawat particulièrement aussi le xalif eh, général de de Tidiane eh, di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te di ko jaal tamit ci turam ci turu xalif yi nekk ci réewu senegal yëpp di jàll aussi xale yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci ci bés bi tamit ci ca gu muy ñetti xale yoo xam ne tamit dañ demoon doon euh, sangu ji far la lab lab foofu ñoom tamit ñu ngi leen di boole ci ci njaal bi mu nekk loo xam ne lu tiis la wàcc suñu kaw te di ñaan yàlla du gën ñee may xoluk muñ te di ñaan mu yemale ko fi li xam ne nag am na ci Tiwaawan def naa war nañ ci mën a def ñàngat ndax dëkk bu toll ni Tiwaawan ak euh, nekk département bu am solo euh, nekk une ville religieuse nekk dëkku dëkku yaakaar nekk dëkku ñaan nekk dëkku jublukaay eh, buñ fay taxawal lu mel ni hôpital war na nekk hôpital boo xam ne luy mucc ayib la mën a maanaam eh, dajale doomu aadama yi fa nekk ñu ci bëri bokk ñu mën fa am les soin nécessaires yi nga xam ne mooy permettre à que yenn yi su leen dalee ñu mën ci ñu mën ci ñu mën ci mucc ndax euh, bu ci bu ñu xoolee ne gis ne ne lafa am ci hôpital premier niveau la ci un département bu toll ni Tivaouane donc bokk ci département yi gën a am solo ci Sénégal waroon nañ ci mën a bàyyi xel ba hôpital bañ fay am mu nekk hôpital boo xam ne bu troisième niveau lay doon au mu nekk hôpital bu bu deuxième niveau mu nekk loo xam ne tamit euh, liñ ci war a gën a jàngat mooy euh, nit ñu dawee di ko di saytu léegi bi mu amee maanaam waroon nañ ko jiitale ci te déglu woon message yi nga xam ne xalifi jaar yëpp ñu ngi ko doon interpeller ngir wax taxawaay bi nga xam ne war nañ ko mën a am lu jëm ci wàllu boobu donc mu nekk loo xam ne nit ñu ciy bàyyi xel te war a xoolaat bu baax suñu doxalin ci loolu donc ñu ngi boole vraiment di jàll réewu Sénégal yëpp te di leen masawu ci tiis bi nga xam ne moo fi moo moo ci wàcc di masawu tamit bépp tiis boo xam ne ne ne fan yi ñu ngi ciy jaar ci ay doomu Sénégal yoo xam ne ñu ngi leen di boom ci réew mi wala ñu leen di boom bitim réew mu nekk lépp loo xam ne rek dañuy ñaan yàlla mu mu yamale ko fi te ñu delluwaat ñun Sénégalais yi ñu delluwaat ci li nga xam ne moom mooy suñu ay valeur delluwaat ci li nga xam ne moom mooy suñu norme delluwaat ci li nga xam ne moom mooy suñu moomeel muy jàmm bëggante fonkante jàppalante àndandoo liggéey doon benn say te ci loolu la ñuy woowaat doomu Sénégal yëpp te di ñaan yàlla euh, ñi xale yi nga xam ne ñoom ay daw dawal gu lañ yàlla may seen waajur yi xolub muñ euh, te réew Sénégal yàlla wàcce fi jàmm defal ñu salaam te defal ñu ko ñun ñëpp darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi ziar ñëpp di baaluwaat ak ñëpp te di jaalawaat ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah